وثيابي وأقلامي بما زاد يا بسم الله الرحمن الرحيم mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi fii fi Bagdad ci kër Serigne Khadim Lo Gaydel moom Serigne Moustapha Lo moom Serigne Modou Lo Issa ñu war a jublu nag ci li nga xamante ni mooy li Serigne Touba wax rek ni billahi lam yaati walaysa yaati mislam na abdillahi zil ayaati kooku mooy lan mooy bisu gàmm gi nga xamante ni mom la Serigne Khadim Lo Gaydel di wote ñu ngi fi ci kanam Serigne bi ñun ñëpp kon nu maasee ànd déglu Serigne bi bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil aalamiin rahmaan wasalaatu wasalaam ala sayyidina dana muhammadin wa alihi wa sahbihi salam alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ma ngi nuyu mbokki talib yëpp ak mbokk yi nga xamne no ngi janoog ñom ak mbokki julit yëpp ñu delu ci wat ci bis bi nga xamne mom moom la ñu baaxoo def di bisub gamu gi ginnaaw boo xamee ni siyaare nañu mboolem suñuy xalifa ak nit ñu baax ñi fi nekk yëpp jotal suñu ziyaar nag ci xalifa bu baax bi nekk di sunu sunu sunu lépp du sunu sëriñ du sunu lépp wëlbatiku it ñu amaat ndigal la ñu daan am di taxawee bis bis bi nag di ndigal loo xam ne yàgg naa ak ndax léegi mu def ñaar fukki at ak benn yoo xam ne noo ngi taxawal bis bi di ko màggal ci guddig yonent bi nu koy defee nag fii ci Baxdaat dale woon ko ci ndigal yoo xam ne sëñ Salim moo nu ko joxoon ba tey jii nag nu bokk di ko def ci loolu nag lañu ñu dellu si tey jii di ci woo mbokki jullit yi di ci woo mbokki taalibe yi yëpp ñu war a ñëw nag daje ci bis bi ci nin ko baaxoo defit di ci woo daaree alxuraan yi nga xam ne bokk na noog ñoom ñaari bis bii ci wàllum njàngum alxuraan yi nga xam ne dañ koy def mu jëm ci àddiyee joo xam ne day jëm ci yonent bi ak sëriñ bi ak mbooleem ñu baax ñi nga xam ne ñëpp nekk nañ ak mbooleem xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne donc ko ci sàkku di ko ci woote ak xeet yi nga xam ne ay ganale la ak i berde moom yonent bi nga xam ne yàllaa ko jëkk a berdeel ndax moom la berdeeloon aljana moom mi nga xam ne nag suñu borom moo ko joxoon jikko yu tedd yi bis bi nag jëm ci buñ koy waxtaanee ci ay jikkoom ak ay meloom ak i jaar-jaaram noo ngi ciy woo ñëpp nag ndax yonent bi ci boppam it guddeem gi nañu xam ne képp koo xam ne yàlla dimbali na la nga nga mën caa teew. nga téwé ko ak nga magal ko rek doyna sa ko fajuk aajo adina ak àllaaxira ndax Serigne Touba ci bopam day wax na ne ne yonent bi nga xamné moy géej mom sayidina Mohamed mi nga xamné yàlla def na moy géej Serigne bi nee bima bi nek géej dama bàyyi lépp jublu rasulullah nee fofu la doli géej loolu la wax ne lil bahri xat wajjaxtu indal bahri matxan bihi hat sirtu misl al bahri nee ci ca géej ga mom rasulullah mi nga xamne moy geej neena bama na ak mom deutmal ko ba jeex tak djublu ko neena na la dal di doon geej neena na ma nak mujj gi man khadim rasulullah ma mujj melni geej ci ay xewal ci lepp di touru ci sama kaw kon nak bis baangi nonu ma ngi Nyep, ak ñepp na ñepp ñëpp jéggal sama Sunu ak suñu dig ak suñu borom ma ngi jéggalu mbokki julli jéeg mbokk talib yépp ma ngi jéggaloonte ñëpp wasalaatu aleykum mbokki jullit yi mbokk taalibe yi ñoko kaddu yu tedd yu mag yaangi nonu gannaaw ba mu jógee jege jëlee ndigal li ca ki nga xamante ni mooy sëñ Sidil Muxtaar ak si waat na nag ci ku tedd ki di sëriñ Xaadim Lo Gaydel sëriñ bi mi ngi ciy woo ñëpp mboolem ku dégg woote bii rek xamal ni sëriñ bi bàyyiwul kenn mboolem ñi nekk ci bitim réew ba ci réew mi sëriñ baa ci woo ñëpp di bis boo xamee ni ku ne baaxoo na ko xam ci sëriñ Xaadim Lo Gaydel muy gàmm goo xamante ni booba ba léegi ndigal lu jóge woon ca sëriñ Saaliwu la kon nag sëriñ bi mi ngi ciy woo ñëpp taalibe yi am di jàmm yi surafaaw yi xalifa yi mbooleem képp koo xamante ni rek xam nga sëriñ bi am am leen te nga sëriñ bi sëriñ bi fàttewul kenn rawatina nag mbokk taalibe yi mbooleem fépp foo xamante ni taalibe nekk na fa rawatina nag waa Cees gox goxaan yi ko war yëpp sëriñ baa ngi leen di woo ci bis bu màgg bii nga xamante ni mooy bisu Seyduna Muhammad bis bi nga xamee ni sëriñ bi baaxoon na ci din ci wax din ci waxtaaneel ay jikko ndax ku ne xam na ni sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko taggee wa innaka la ala xuluqin azim ci guddi ga nag sëriñ bi daal di koy war a jël jël jikkoy Seyduna Muhammad yeenu waar nu jox ay barkeelu jublu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaanalante ba déwén kon nag noonu la ko sëriñ bi defee kon nag kaddu gaa ngi noonu gàmm gi mi ngi tombeek altine di fukki fan ak ñett ci weer wii nga xamante ni moom lañu nekk muy weeru janvier kon nag fii lay amee ci Bagdad ci ndigalu sëriñ Xaadim Lo Gaydel mboolem mbokki taalibe yi mboolem mbokki julit yi mboolem mbokki am di jàmm yi ñëpp sëriñ baa ngi leen di woo kon nag bis baa ngi noonu di mawludu fii Bagdad kon nag fa bushra lana euh, arda Ceesin fii خادم لو غايدل كون نك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته جيرغن جيف